des aspects liés au cancer de l'enfant et dans le cadre aussi euh, du plan d'investissement, deux structures sont prévues, euh, prévues à l'intérieur du pays. Mais comme j'ai dit, euh, en formant au niveau du district sanitaire les euh, acteurs communautaires, les infirmiers chefs de poste pour une détection précoce du cancer, on, cela améliorera euh, la détection et ensuite euh, la prise en charge et du, du fait Euh, les taux de survie jërëjëf soxna Ramata ñu ngi lay jaajëfal tey dañ fi daje euh, ñu ñëw teewal fii jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram muy euh, monsieur Abdoulaye Diouf Sarr parce que ci àdduna bi yëpp ëllëg tombeex fukki fan ak juróom ci weeru février communauté internationale day célébrer cancer ba nga xam ne mooy dal xale yi loolu moo tax tey pour jëmal bés boobu dañu invité fii ci Radisson bépp ka nga xam ne Euh, yaa ngi yëngatu si wàllu xeex cancer boobu maanaam experts yi ñi nga xam ne euh, dañuy jàngale wala dañuy nekk université wala ay pédiatre lañ seen xam-xam màcc si fànn boobu mais aussi euh, ñi nga xam ne aussi ñooy waa ministère de la santé ñi nga xam ne ñooy partenaires yi ñi ñuy dimbali ci xeex bi secteur privé bi aussi ñi ngi fi mais aussi comme la ñuy wax nit soo koy defal da koy boole ci xalaat bi da nga koy boole si say nas projet yi loolu moo tax ñi nga xam ne ñoo doon dund wala ñi nga xam ne ñoo yor ay xale yi nga xam ne am nañ cancer ñu ngi fii si salle bi pour que ñun ñëpp ñu lëkkaloo waxtaan ne euh, feebar boobu euh, naam cancer bokk na si feebar yu dërkiis yi yi nga xam ne seen ndeeteel dafa dafa dafa jéggi dayo mais canceru xale yi euh, fii si Sénégal ñu ngi ciy xaar at bu nekk lu toll si juróom-ñetti téeméer wala junni lu toftal ñaar téeméer mais particularité Sénégal mooy nee naa ñi ngi xaar juróom-ñetti euh, téeméer mais fii Sénégal ñaar téeméer yi rek la ñuy gis loolu moo tax nguuru Sénégal dafa décidé que ni euh, képp ki nga xam ne yaa ngi yëngatu si wàllu faj yàllu ko docteur tàmbalee ko ci euh, case de santé bi ba si hôpital bi jaaree ko si poste de santé yi ak centre de santé yi ak district sanitaire yi ñi nga xam ne ñooy foofu ci kër docteur ñu tàggat leen pour ñu teel a gis ñu teel a xàmmee mandargay cancer parce que gis nañ ne mandargay cancer suñ ko teelee xàmmee Euh, diagnostiqué ko faj bi dina mucc ay nit ki dina mën wér cancer nekkatul comme nekkatul fatalité nit ñi dañuy xalaat nekk discours cancer de après dee moo si topp wala ñàkk bakkan moo si topp mais gis nañ ne si cancer soo ko teelee gis soo teelee xam mandarga yi teelee gis mandarga yi nga yóbbu ko si hôpital nañ si indi ay saafara loo moo tax nguur gi mu ngi si taxaw euh, ak partenaires yi pour que si gox goxaat yi euh, bàjjenu gox yi relais yi infirmier chef de poste yi ñu tàggal leen pour que ñu gisee benn xale ba nga xam ne am na mandarga yooyu ñu teel ko yóbbu hôpital et puis suñu ko teel yóbbu hôpital dañ ko teel a faj indil indil ko saafara euh, jërëjëf laaj nga laaj bu am solo tey nguuru Sénégal taxaw na temm pour euh, yombalal faj ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo am feebaru cancer ñu ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy faju euh, de façon général mun nañu waxtaan si wàllu chimiothérapie mun nañu wax aussi si wàllu radiothérapie mais soo jëlee canceru xale yi mën nañ si jox ñetti misaal misaal bu njëkk bi mooy si wàllu chimiothérapie nit ñi li ñuy gën a jàpp mooy chimiothérapie ci wàllu cancer du butitu njurukaay ak cancer du wenn kenn di si fay dara mais euh, njiitu réew mi dafa décider ci euh, wàllu chimiothérapie boobu képp ki nga xam ne da nga am cancer wu xale soo doon fay téeméer euh, juróom-benn fukk yi nguur gi moo la koy jëlal doo si fay dara donc yow ñeent fukk yi ngay fay donc dafa am li wax subvention si nasaraan à de cent pour cent loolu lu am solo la pour yëmbal ñi nga xam ne ñoo am ñoo am cancer nekk xale am na aussi euh, kuréel yi nga xam ne ñu ngi ñuy jàppale euh, notamment groupe euh, franco africain d'oncologie pédiatrique pour yombalal xale yooyu garab yi pour que ñu mën am garab yi ñoom aussi te duñ ci fay dara loolu lu am solo la benn aussi may cancer mën a toll foo xam ne dañuy wax li ñuy wax si nasaraan soin palliatif may feebar bi day jéggi dayo nit ki day ànd ndax mettit am na garab bu am solo boo xam ne xale yi dañ ko war a jëfandikoo suñu tolloo foofu garab boobu fii si Sénégal ngoo bu nekk xale ko mu nekk mag kenn du si fay dara te loolu euh, njiitu réew mi moo ko décidé ci initiative gratuité ba nga xam ne jëloon na ko depuis 2019 leen li aussi lu am solo gis nañ ne sii si Sénégal centre de référence ba nga xam ne foofu la ñuy fajee cancer du xale yi mu ngi fële ci hôpital Aristide Le Dantec am na benn unité oncologie pédiatrique bi mais pour gën a euh, yombalal askan bi seen euh, faju am na ba nga xam ne ñu ngi koy tabax fële ci Mbour muy unité d'oncologie euh, pédiatri service d'oncologie pédiatrique mu nekk ci Mbour si hôpital Mbour loolu travaux yi mi ngi ñu ngi phase finalisation te loolu su paree dina gën a yombalal askan bi ñu ñu faju mais aussi kenn umpalewul ne octobre bi passé njiitu réew mi teg na pose première pierre centre national d'oncologie mais loolu aussi lép la nga xam ne mi ngi langoo si cancer comme nekk cancer du mag cancer du xale dina am ay jéego yu am solo yu ñu si yu ñu si def te euh, itam euh, ñuy wax cancer du rek affaire spécialiste euh, comme bàjjenu gox bi wala relais bi ni muy waxee si wàllu sibiru wala ni muy waxee si wàllu doomu jàngoro VIH noonu la war a waxee aussi ci doo ci cancer mooy dañ leen ñu tàggat former leen bàjjenu gox yi relais yi infirmier chef de poste yi pour que mandarga ba nga xam ne nit su ko amee xale su ko amee mën na nekk cancer ñu teel ko gis teel ko faj teel nemmeeku teel ko diagnostiqué comme ça ñu faj ko et euh, mu am saafara te euh, ndetteel li wàññeeku ci wàllu boobu